sànq lañ doon wax affaire kii affaire affaire DER. Mhm. ñu ne bon si 2017 ba léegi politique yoo xam Macky Sall def na ko ak yeneen politique yu mel noonu ñuy créer emploi. Ah. Euh, ñu ne nañ deux milliards euh, quelque bon fay plus de trois milliards on va mhm. euh, ba pare ndaw yi ñu ngi continuer di dem di jël gaal yi. Mhm. voilà amuñu liggéey ndaw yi pour yow politique yooyu dafa nekk nekkul ay politique yu baax. Euh, sinon bu fekkee nekkul ay politique yu baax lan lañ mën a def pour que ndaw yi fii Sénégal mën am liggéey. vous savez politique boobu noonu baaxoon na mais la façon la gestion wala ni ñu ko doon defee moo baaxul organisation moo desoon. yow da nekk ci biir. non je sais parce que. noo xamee noo xamee baaxul ko. parce que déjà ñun seen résultat lañ leen jugé gis nga politique fii ñi fi def politique ñëpp nga yor nguur boo paree sa résultat rek la ñu lay jugé. pas parce que da yoroon lii sa nombre tànk boo ko yoroon pour pour une gestion c'est après avoir effectué quelque chose résultat lañ lay juger te résultat boobu noonu ñoom ce qu'ils c'est de faire des recrutements politiques maanaam yow nga defal ma campagne à l'issue de cela je vais essayer de vous donner des postes des des privilèges de poste. mais kan moo loolu li ngay wax ni mais moo loolu moo fi amoon ci ci loolu moo fi amoon. mais aujourd'hui c'est la vérité loolu la ñu fa amoon donc aujourd'hui ce qui se passe ce qui se passe dans le passé du fi amaat insha allah ñu ce qu'on ce qu'on est en train de faire de pousser la jeunesse également à ce qu'on parle une emploi benn employabilité xamante ni jeunesse yëpp nañ ci seen bopp au moins am sa sa financement ñu mën laa financer am sa projet bopp mais yow Barham bi nga xamante ne mooy seen mooy su fekkee ni moom bëgg na defal dara Sénégal day toog fii <laughs> <laughs> papa bàyyil tuba sànni picc rek. allo ñu bàyyi la nga tàggatoo ah, mbokk yi alors ah, nag xalaatam la woon de. moo baax na mais mu ngi may sànni picc. non loolu bëgg a defal Sénégal loolu bëri une deux trois nga génn. baax baax na mais lii laa au Sénégal maintenant. ah yaa ne cinq jours mi woon Canada. mais waaw ce que j'ai dit mais ça dans ça dans le passé ah, à l'instant Barham il est il est au Sénégal. il est la nga tàggatoo mbokk yi merci beaucoup. alors merci euh, pour l'invitation maa ngi leen nuyu yéen ñëpp mais vraiment pour pour l'invitation du nuyu tonton Babis du nuyu également le président Barham di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér di nuyu également mboolem conservatrice et conservateur mais aussi di ñaanal également le président du parti comment le président de la république son excellence monsieur Bassirou. te yow fan ngay liggéeyee. ah fooy liggéeyee. Sonatel. moom moo la fa dugal. déedéet pardon. ah ok d'accord est-ce yaa ngi dégg ah, la. <laughs> damay laaj rek. kon ko fii leader politique yi ñooy dugal seen i bopp. non mais Pape da lay kii da lay te cherche en fait mais <laughs> bul nangu mu. non mais leader politique yi ñooy ñooy branché seen i bopp. mais non mais non. allez-y tàggatoo xam balaa may xam fekk na man. ah yee ok d'accord alhamdulilah. ok donc vraiment si loolu vraiment di ñaan ba xam ci ma de le président Bassirou Diomaye yàlla may ko. li nga xamante mooy vision le projet qu'il a proposé aux Sénégalais mu nekk projet bu nga xamante ni Sénégalais bi seen bopp mm. euh, accident yi nga xamante ni ñi jot a am si ginnaaw yàlla sàmm ñu vraiment loolu yëpp mu bañ a am di ñaanal yàlla yéen yi xamante ni yéen nag taskat xibaar yi lépp lu ngeen di wax également askan Sénégal gis seen bopp te vraiment yàlla sàmm leen aar leen ci barke yonent yàlla mu xamal